yàlla mi am jàmm salaam sutura àdduna ak alaxira yal na yàlla loolu lañu ko defal ci daraje Sidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñaanal xalif généraux yi ne ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fii ñu yàgg fi ànd ak wér Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général des Tidiane nuyu ko ziar ko nuyu njabootu Sidil Hadji Malick gépp Serigne Sidi Mouhamadul Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ak njabootu Cheikhul Khadim gépp Chérif Abdoulaye Thiaw Laye Cheikh Bou Kounta ma nga Ndiassane sama xarit Cheikh Bou Diop maa ngi koy nuyu tey la bésam bi xam ngeen ne ci Grand Théâtre boo ko kenn wuute incha allahu taala Serigne Cheikh Tidiane Seck ca Cene ba Serigne Cheikh Tidiane Niass ma nga Kaolack Serigne Ibrahima Niass ma nga Kaolack euh, Serigne Mouniru Ndiéguen ca Thiès ak euh, Serigne Mouhamadou Bachir Tall ma nga Louga xalifa Omar yéen mbooleem xalif généraux yi Serigne Abdoulaye Darame ci àndulaay ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgër waaye xam nga bésu Serigne Mouhamadou ba ñuy def ca Gambie ca Bakaaw ca sëriñ kër sëriñ Mouhamadul Habib mbokki bu ko kenn wute incha allahu taala Euh, samedi lay doon le 19 ca Banjul maa ngi woo soppe Sidina Mohamed yi nekk Banjul yëpp ak njabootu Seex Sidil Haaji Maalik fa ne bu leen ko wuutee waaye lay doon incha allahu taala nuyu baax a baax sëriñ Maam Ousmane bu sëriñ Habib soxna Safiyatu bu sëriñ Habib sëriñ Moulay si si euh, bu sëriñ Mouhamadul Habib si euh, sëriñ Pape ñoom ñëpp ña fa incha allahu taala ci njiitalu sëriñ Maodo si sëriñ Babacar Ibn Alaaji Mansour ak njabootu Seex Sidil Haaji Maalik yëpp samedi 19 lay doon ca Banjul ca Bokaaw boo ko kenn wuutee tàkkusaan lay doon waaye waaye ku fa 3 heures fekk nag ci ginnaaw ngay toog incha allahu taala euh, maa ngi euh, xaar Pape Malick mi ngi ci yoon bi incha allahu taala embouteillage bi ko téye xam nga Sénégal 92 embouteillage foofu dafa bari Euh, maa ngi dalal Serigne euh, Baye Zal bàyyi ko ba mbuur moom itam di waajal bis bu mag a mag a mag suba lay doon incha allahu taala euh, di wax waa Mbour nag boo xam ni bis bu doy waar lay doon ndax rawatina njabootu Cheikh na Cheikh Saad bu rawatina mboolem kuy murit di laayeen di xaar tijaan ku yéex ca ginnaaw toog ndax Baye Zal xam jug na jugin koo xam ni yaakaar naa ku bëgg si ginnaaw Mouhamed di nga ko bégee di nga ko safoo sama jigéen soxna Jamilatu tabarakallahu bàyyi ko ba Jurbel itam di waaj bis bu mag a mag a mag ca waaye xam nga Jamilatu dalaloo na ma ci Euh, gàmmu gi gis nga émission bu mag ba ma def ak moom ci euh, télévision bu mag boobu muy di Bouchra TV Bichri TV Bichri TV yaakaar naa euh, sa télévision boobu bu mag boobu boobule nga xam ne mi ngi daw ci internet bi ñëpp ko bëggee dinaa ñëw ci moom léegi Baye saxaar nag bu jubee gaar day korne bala maa nuyoo ak yow bégalal gars yi ba noppi. لي من أنا وقال رسول الله بتة زايدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام من كرسي المسك يمسي ويقتدي وعلى خير خلق الله نور محمدا سيدنا محمد سلام جملا سلام مجلا salaamun yu naa leen ala xayru xalqulaay màgg leen borom bare or ba ca madina seydina muhammad nabi dañ koy woowee seydul awalina seydina muhammad nabi dañ koy woowee seydul aqarina moom mooy seydul sharifu mooy seydul basar xabibu rabbul alamina imaamul xaramayni kooku jar naa way wa alhamdulillahi allazi anaaral wujuda muhammad rasulallahi bital atil xayril bariyati seydina muhammad bi isbaai rahmatil mursalati seydina muhammad nabi moom mooy samsu diinil islaamiya borom man tawallaahu mawlaahu bil qimsi wal himaati wal ayati zarmadiya wa ala maqaama wa fawqa kullu maqaamatin wa fadla wa alal anbiyaayi zawil maratibil aliyati seydina muhammad fil awwalina mabdaan la waaye fil aaxarina xitaamam ay waay ku bëgg yonen man Baye Zal bëgg la loo am noo mën a mel ndax njol mooy waaja muhammadu rasulallaahi muhammadu rasulallaahi imaamul xaramayni laa ilaaha illallaah Mustafa yow Madina wayna muhammadu rasulullahi muhammadu rasulullahi imaamul xaramayni la ilaha illallah rasulullahi yow yaay borom madina seydina muhammad moom mooy mustafa yonen bi moom mooy mujtaba am na tur buñ ko daawoowe nan ko ummiyun seydina muhammad dañ ko daawoowe jabbaarun moom mooy abul qaasimu seydina muhammad moom mooy abu taayiru seydina muhammad moom mooy abu tayibi moom mooy abu ibrahimu yoneen moom mooy musaffaun moom mooy saaliqun seydina muhammad moom mooy musliqun moom mooy muhayminu moom mooy saadiqun moom mooy musaddaqun am na tur buñ ko naan seydil mursalina imaamil muttaqina ngoog def leen nii ñu màggal barakallah xurlil muqajjali macha allah macha allah si ba eh, eh, Baye Sall yal na yàlla gën la barkeel mbokk mi noonu bis la bu mag boo xam ne incha allahu taala suba lay doon ca eh, Mbour mu yoon ci yoonu Zawal bi bis ba kañ nga ko tàmbali gan gi ma doon xaar nag agsi na yaakaar naa di soppee ñëpp Pape Malick Mbaye Euh, di sama xarit di sama soppe waaye gis nga euh, réew mi xataay gi rek moo tax mu xaw a tardé tuuti waaye incha allahu waaye léegi yaakaar naa ñëpp daañu bég pap am naa mbégte balaa may ñëw ngay nuyoo ma àggale ak Baye moom itam incha allahu taala bés bi kañ la doon pap bi suba la incha allah. ni le 12 mars incha allah ah, depuis daaw lañ ko commencé bi mooy deuxième édition bi daal di woo ñëpp rek diwoo woo yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp di leen wax ne incha allah suba. ñu jàppale Baye Sall dañuy door door nag ci tagg yonti yàlla Muhammad maa ngi nuyu Bouna ma sa ménagère sama xarit la waaw Cheikh Bouna moom Cheikh Bouna moom sunu sunu lépp la muy wax lu bari ci yow macha allah moom dañoo yàgg lool nag muy nit ku tedd tabarakallah mu koy wax kay muy wax lu bari ci yow macha allah mm-hmm. yàlla jàppale ñu di woo ñëpp nag ñëpp ñi nga xam ne nii daal ñu ngi seetaan Baye Sall rawatina soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina kuy jullit ak ku dul jullit ñu ngi lay woo ci jour ba suba incha allah. mais Baye Zale il faut nga ñëwaat yeewu leen nag pour ñu gën a am temps bu yaatu boo xam ne. ak ak émission boobu di siira. pour nag nit ñi gën a xam kan mooy Baye Zale. incha allah incha allah am naa am naa mbégte ah. incha allah incha allah kon suba lay doon. suba heure lay doon. Euh, à de 15h lay commencé. 15h la ñuy tàmbali. tàmbali la ñuy ci ban côté la. Euh, booy booy booy booy dugg warang di sorti mbaling waaw benn kii bu ñu wax tamarin. waaw tamarin foofu lay amee incha allah. tabala yi dina jolli. tabala yi dina jolli ci kàttanu yàlla incha allah. ñëpp ku fa ñëw di nga bëgg. ku fa ñëw daal di nga gëb si gan incha allah incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Baye Zal euh, maa ngi jégalu ci gàttaay bi. waaye yoon yemul ci benn. alhamdulilah incha allah taala dinaa jokk euh, jokkoo euh, bu na dina gën a yaatu. incha allah am beneen plateau boo xam ni. nit ñi daañu gën a xam kan mooy Baye Zal. incha allah incha allah jërëjëf kontaan naa sama xarit sama jigéen Jamilatu maa ngi lay nuyu am naa mbégte lool ci dara la la nga aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi xaaili fi kitaabihi l aziz fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin wa qaala subhaanahu wa taala fa zakir bil qurani man yaxaafu waid wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaalamu fihi xayran ilaa dallana alayhi wala tariqan yu addi ila charri ilaa xasarana minhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara tey ñaanal suñu ñaari waajur yàlla jéggal leen seeni bàkkaar te xar leen ci àjjana yi gën a kawe Oustaz Pape an ñu ngi leen nuyu baax di la ziyaara di nuyu waa kër gi ñu fi fekk yépp mu di waa Futurs Médias di nuyu itam mboolem koo xam ne rek yaa ngi toog di seetaan télévision bi nga xam ne moom moo di tey jëmeletu yaa ngi waajal bés bu mag di le 19 ba di bésu alquranul karim euh, naka nga waajale bés boobu ak ñan nga tuddee bi ndax yaakaar naa yaa ngi ko tuddee ay góor yàlla yu mag yu nekk ci Njurbel mm-hmm. euh, wàccaayu bés bi ak euh, ban place nga koy defee bés bi nag bés bu màgg la ci ñun bés itam boo xam ne itam màgg na ci borom bi subhaanahu wa taala ndax moom moo di concours tari alquran boo xam ne at mu nekk dañ koy amal ci Jurbel ren nag moo nekk suñu ñetteelu édition mu di jongante ci tari alquran waaye nag ren dañ ko def région de Jurbel yépp ñoo boole diggante Bambey Jurbel ak Touba euh, def nañ éliminatoire yi nag ci le 25 bi passé ñu tolloog ñeent fukki ndongo ñëw nañ ñu jongante ci tari alquran mm-hmm. ñu tànn ci euh, fukki ndongo ak ñett ñoom ñoo war a dem final mu di le 19 mars waaye nag dañ koo tuddee ñu am solo mu di euh, Serigne Mohamed Dem mhm. euh, te dëkk Jurbel ku ko tudd itam tudd alquran karim mhm. ak ki nga xam ne moom moo di euh, sëñ maam Thierno Kanji sëñ maam Thierno Kanji ku dégg soxna Jamilatu rek ak waa kër maam Thierno Kanji xam ne lu yaatu la lu sori la mhm. beneen bi ci des itam ñu tuddee ko itam suñu wóllëre koo xam ne diina rek moom moo ñu boole mu di soxna maam sa Mbàkke lu kafe waaye nag dañ cee ànd ak ci liggéey bi waa télévision bi nga xam ne moom moo di Mafatihul Bichri di télévision islamique au service de Khadim Rasoul ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax. ak ban place ban place koy defee. Euh, ñu ngi koy defee mairie bu Diourbel. mairie bu Diourbel mairie bu Diourbel lañ koy defee. le 19 ban heure lay doon mars 15h lay tàmbali. muy bis boo xam xale yi dañuy tari alquran waaw dañuy jongante ci tari alquran suñ paree itam ñu neexal leen buñ paree ñu neexal leen neexal leen waaw mais kilifa yi nekk jurbel yëpp euh, yëg nañ ko waa kilifa yëpp kenn ku nekk daal dem nañ yëgal la ko di yëgal ko itam waa Jurbel yëpp. mais Aminata Aminata daal sama jigéen boobu la présidente yëg na ko. waaw moom tamit yónnee nañ ko invitation am ma nag ndax jot na ci waaye ñu ngi ko ci woo bu baax a baax moom mm-hmm. tamit ànd nañ ci itam ak sëñ Muntaxa Mbay mm-hmm. DM Express mu ñu ciy gunge. Mm-hmm. ak ki nga xam ne itam moom moo di sëriñ Ahmad Badawi mu sëriñ Fàllu ci ndox moom nga xam mais sa directeur Bichir TV xanaa moom it dina ci def lu bare bare. bu baax a baax macha allah uh-huh. moom mooy financé lépp waaw Bichir surtout waa Bichir yëpp. sëñ Oustaz daal ñu ngi koy euh, yëgal képp koo xam ne rek yaa ngi dëkk région de Diourbel waaye itam waaye bàyyiwuñu waa Jolof yëpp ñu ngi leen ci woo ci bés boobu. Baye Niass Tandian yëg na ko. Baye Niass Tandian waaw yëg sama xarit boobu la. waaw sëñ Habib Kañ nag. sëriñ ko ndax maamam lañu ko tuddee. maam Thierno Kañ jërëjëf waaw soxna Aji Kañ itam nee na mi ngi lay bëggee bu baax a baax. nuyu ma ko maa ngi koy ziar sët ci maam Thierno Kañ. jërëjëf Jamilatu xam naa dama la bàyyi maa ngi ñëwaat léegi Pape ñëpp nag nee nañ ma lu tax ñëwoo 7 man leen bu ñëwee seen xol dina sedd saxaar nag bu jubee gar day corne mer mer gi la nit ñi mer gi la nit ñi dencal euh, avant may ñëw ci Bété Madior xaar ma nuyu sama doom avant may ñëw Bété Madior sama papa ana sama doom maa ngi nii de papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaar bu baax papa maa ngi lay ndokkeel ci aljuma ji ah, maa ngi lay ndokkeel man itam ci aljuma bi di la ziyaar bu baax ziyaar sa invité yooyu toog tamit papa mm-hmm. ku ci mel ni Pape Malick Mbaye ak bay Zal ak euh, sama mbokk ijaab boobu toog waa Bichri TV maa ngi mm. leen di bu baax di leen ndokkeel ci ajuma ji papa. moom it xam naa dina la dalal incha allahu taala. Mm. waaw incha allahu taala. boobu kon sama doom tey xam naa xijaab de la semaine rek la ji sànni. waaw waaye bala ñu cay ñëw ñu ànd ak Pape Malick. mu bëggal ñu ma dellusiwaat caatu mbay doon dañu ànd ak moom mu si karal ñu lu neex Pape Malick Mbaye ay cam. aywa. bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaniya ana ñi bëgg yoneen. sallallahu alayhi wa sallam. وابنيهم الستين آلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فوم ينن ساداتنا أهل المكارم والندى ينن farid saqaamal abdi waksif karamboom nanu màggal yoneen sallallahu alayhi wa sallam yaa xayra man maddal usaatu lahun yadaa farij humumal muslimiina wa karabahum yaa xayra man maddal usaatu lahun yadaa وليس لي أمل ألقاك يا أملي سوى المحبة والتعظيم وسلام على نبي وعليه Alaaji Malik nee na asbil alayya ridaa sitri yashmuluni wa walidayya wa ashyaafi mal ajmaina salaam sax ci yeneen narjuka ya rabbana fi kawni xidmatina bidaatan xayra muzijatin salaama rabbina daiman sëriñ Cheikh samaam nee na wabiitu yaa rabbana bay alfuduli fakun mujizaho rabbana bil judi wal karim lana ala nabi wale yenen ajmaina salaam أسد سابيا لخي تكو سابيا لخي تكو سابيا أبو بكر سابيا أنا عمر سابيا أنا عثمان سابيا loxo yi ca kaw soppe pap taalibe Cheikh yi loxo waa Sénégal loxo yi soppe nabi loxo yi kum ko ci jaral loxo yi yeewu leen ma way yónneen be yeewu leen ma way yónneen be su yeewoo ma way yónneen sallallahu alayhi wa sallam loxo ca kaw yaa jara magal doomi Abdallah Abdallah Abdallah Abdallah Abdallah Soppe na bi yaa ngeen. Soppe na bi yaa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ku ci bëgg yeneen sa loxo yi ca kaw yeneen ibnu abdallah yeneen ibnu abdallah sallallahu alayhi wa sallam mustafa jaramagal noonu ak eh, eh, ba ñépp di nelaw yen nene nelaw dañuy fanaane tag yoon sallallahu alayhi wa sallam Pape yaa koy firi. ndeysaan. ndeysaan. yeew naa ngir yàlla. ndeysaan. yëkkatil sa loxo. fi am aajo. yooyu mu gaaw a faju Cheikh nee na ibu dem ci waawan siyaare Maam Maodo Cheikh nee na ibu Maam Maodo Cheikh nee na ibu Cheikh nee na ibu nu Abba Khalifa Mbaye Sy Khalifa Mbaye Sy Khalifa Mbaye Khalifa Mbaye Mam Mansour ñaari kaala ya siyaare Mam Mansour borom ñaari kaala ya borom bal xaw mi mooy borom jinne ya siyaar mu lay dabaax siyaar mu lay dabaax mam dabaax mam dabaax mooy mu lay dabaax mam dabaax mam dabaax mooy mu lay dabaax barakallah xalifa bi xalifa na fi yàgg te wér amiin ruq am na borom sëriñ Cheikh ay borom ruq bi yónne na bàyyiwul dugg ruq dina fekk la ci biir ruq di la rëkk sa ndig rëkk ndax sëriñ Cheikh ay borom ruq bi baarakallah baarakallah borom ruq bi Seyd Al Maktoum xalif général di Tidiane ñaanal ko yàgg fi lool te wér sëriñ Abdul Aziz Al Amin sëriñ Babacar El Hadj Mansour sëriñ Maodo Sy sama sëriñ sëriñ Babacar Abdul Aziz ak njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp ñaanal suñu Baay El Hadji mbay yàlla yokk leeram yàlla taas ci barkeem nitu yàlla ba wulluyu ba mi daroon Serigne Babacar Sy radiallahu anhu waaye ak njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp bàyyi dudu kenn mbay waaye bàyyi Pape Malick mii ma invité nga xam ni mooy caatu El Hadji Mbaye doon de yaakaar na tey mbooleem soppay Baay El Hadji Mbaye am na loo yëg bég nga ci El Hadji Pape Malick Mbaye mii nga xam ni soppay ñëpp la Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay bégee am naa mbégte loolu ba bàyyi la nga nuyoo ziar aouzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mawlana muhammadin salallahu alayhi wa sallam xaatimi nabiyina wa imaami almursalin mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama soppe bi ma jàkkaar loolu nga xam ni boo ko gisee rek sa xel nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax dëgg yàlla paab yow àdduna bépp la sopp ñëpp la bëgg ba bitim réew mm-hmm. dañuy woote di la kan mooy Pape Hann ndax mën nañoo xamante ak moom mm-hmm. man leen waaw moom de mi ngi fi di taalibe rek di taalibe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar di ñaan yàlla guddal sa fan amiin mbay ñu bokk ndax mm-hmm. it lii ngay def lu baax la ndax wane na ni réew mi tamit am na waa kër Seydunaa Muhammad te yaa ngi leen di xamal kuy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala maa continuer nag maa ngi jéggulu ci embouteillage bi wala embouteillage bi. ndax mhm. pont bi ñu defar. Mhm, mhm, moo tax waaye départ naa ca 7 heures. maa ngi jégalu. jërëjëf Mbaye incha allahu taala yow yaakaar na waxoon naa ko gars yi nee naa leen euh, tardé na waaye bu ñëwee rek ñëpp bég. mi ñaa ngi may envoyé message am na ko ma envoyé message sax ne ma neel Pape Malick ko sama doom Fatima euh, nee na may na la doom nee na am na fukki at nee na fii ak euh, juróom-benni at juróom-ñaari at rek nga ñëw jël si ko muy soxna sama benn jigéen ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral Ndeye Seck Ndeye Mati Seck maa ngi koy nuyu baax a baax a baax Béti euh, Madior balaa maa yow ci léegi fu ñu jëm ñu dem xijaab de la semaine. waaw ñu jaar ci suñu ñaareelu élément xijaab de la semaine. salaamualeyka yaa rasulallahi salaamualeyka yaa xabiballahi ku ko waxagul yàlla nga ko wax nuyoo la boo xam ne yaa ngi ko koy nuyoo ba nga àggee ca Madinatul Munawwara jàkkaarloog borom bariir or ba ca nga yëgee ni benn VIP dong moo am mooy rasulullahi. ku ñu koy jiiñ boo demee jàkkaarloog moom nga xam ne ci tëdd fii mooy kilifa ñëpp moo tax ma ne ko sëtëraay bii day rasulullahi ndam kese la Buti Madior yaakaar naa xale yi ñu ngi muuru léegi. waaw xale yi moom ñu ngi muuru bu baax papa. <laughs> ku muuru noonu mbaaco la wala kan la. déedéet du maaco kii mooy soxna Juma Fall ay dara war nga ko xam sax. ah waaw soxna. Juma fal ay dara war nga ko xam. waaw waaw Adja Juma waaw Juma Juma. ma ah, Juma waaw ah, Juma mën naa muur de ah. noonu ko defee rafet na de mais mais mais mais am na borom kër ah. waaw am na borom kër yal na yàlla barkeel sëy bi mhm, ci barke Seydina Mouhamed amiin bég nañu lool macha allah. dëgg la yàlla may ko njaboot ju barkeel ndax nekk na ku baax tamit. jërëjëf. jëf mhm, ça me fait penser à toutes les femmes voilées ñu fi mus a jaar hijab de la semaine. Mhm. les voilées fashion Maretu Camara. Juma Fall ay dara ñoom ñëpp ma leen di nuyuwaale de passage papa bu baax. jërëjëf Birima Dior kon ma ñëw Pape Malick euh, jëminatu kon la 19. le 19 mars suñu askan ji mi ngi envoyé message nee na ñoom tamit ñu koy waaj ñu ngi koy préparé <laughs> moom ñoo ñooy borom bés bi moom daal ñu ngi ci képp koo xam ne rek yaa ngi wuyoo ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ñu ngi lay woo ci bés boobu ndax bésub alquran la jongante alquran mm-hmm. ndax dañu bëgg képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu alquran mm-hmm. di ndongo daara yeeg koo xam ne itam yaa ngi jàng wala nga bëgg alquran rek mhm. ñu bëgg nga xam ne alquran mooy wax yàlla ji nga xam ne ci lañ war a jëriñoo àdduna jëriñu ci itam àlaxira mhm. moo tax lépp lu ñu am rek ñu jël ko delloo ko ci alquran karim mhm. ginnaaw bu ñu juddoo ci ñaari waajur yu tedd teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim moo tax ñun tamit bu ñu juddoo xàmmee rek ñu euh, yar ñu jàngal ñu euh, ñu war a jëfandikoo suñu diine rek suñu xel daf ñoo jox ci ñu teral alquran karim àdduna ak àlaxira ak àlaxira incha allah taala léegi bu 11 jotee Seyda Fat Bintou Diop dana ñëw moom itam ci njàngaleem yu rëy yu riche yooyu le xaar leen ko léegi incha allahu taala mais nag tey am ngeen naqar de laaj ma lu tax. Ah. siira du am tey <laughs> siira du am tey siira ajuma ji di ñëw rek. incha allah soppay Seydina Mouhamed yëpp a ngi koy xaar mais nag siira du am bu 4 di ngeen gis leneen liy am. Euh, xam nga télévision Futur Média ñoom euh, ñu ngi noonu waaye daal siira daal du am du am daal siira du am waaw soppa yonentu bi yëpp nañ ko naqarlu tey waaw ndax dafa am leneen lu foofu da waa li ñu ko jëndee jar na ko nag ndax ah. jaru ko sax <laughs> moom xam euh, comme que télé privé la ñooñu dañoo fay xaasu bare bare bare bare moo tax ñu jox leen boobu lañuy la ñuy tàmbali hmm. moo tax siira du am maa ngi que nit ñi dañuy xaar siira hmm. kon papa benn deux minutes rek parce que siira du am tey il faut que ñu ñamal nit ñi ci rasulullah laka mujizatun ajazat kullal wara waa ana ñu bokk na ci li mu gën a mindee fii moom rasulullah laka mujizatun ajazat kullal wara la njëkk muy ñëw ku defoon bàkkaar dañ koy bind sa buntu kër ay laka mujizatun ajazat kullal wara wala ku defoon bàkkaar dañ leen di wax dugg leen ci néeg ngeen reyante laka mujizatun ajazat kullal wara bokk na ci li mu gën a mindee fi moom rasulullah yi laka mujizatun ajazat kullal wara la njëkk muy ñëw ku sa yëra takkoon sobe da tukk pëti fa takku sobe laka mujizatun ajazat kullal waraaya waaye keroog bi Seydina Muhammad ñëwee moom rasulullahi ay laka mujizatun ajazat kullal waraaya ku defati bàkkaar da ngay wax astaghfirullah tuub tuub gu wér yàlla baal la say bàkkaar laka mujizatun ajazat kullal waraaya yàlla ni Seydina Muhammad ku yëreem taqati sobe na ko fóotee maa um mutlax loo naturel mu mën a laab ay laka mujizatun ajazat kullal waraaya yàlla ni may rasulullahi laka mujizatun ajazat kull alwara maa la dig ni la nit ñi daañu fàqi ko wutal si la yow rasulullahi laka mujizatun ajazat kull alwara di nga gis ndimbalal yàlla nit ñëpp wuy si la yow sidina Muhammad sayyidi mursalina oh. ajazat kull alwara yónneen frontière yi dana toj ñëpp fàqi ko wutal si la yow rasulullahi sayyidi al-akhirina ajazat kull alwara iza jaa nasrullahi wal fathu رأيت الناس سيد المرسلين أجازت كل الورى يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا سيد الأولين أجازت كل الورى يلا نسيقنا محمد sayyidil mursalina ajazat kullal wara mbooloo mi fàqi ko mbooloo ak mbooloo wuy si la yow rasulillah sayyidil axirina ajazat kullal wara yàlla yónnee ko ci dëkk su ndaw ay montagne wër ko dëkk ba xóot mu convaincre deux milliards sayyidil mujahidina ajazat kullal wara moo tax yàlla ne ko ñi la bëgg ak ñi la bëggul day du ñu yem yow rasulillah yi sayyidil axirina oh. ajazat kullal afa man kaana muminan ngeen ni ka man kaana fasixan yàlla nee na déedéet lay sa una sayyidil mursalina ajazat kullal wara moo tax ay kii maanaam lottu loon a mindee fi moom Seydina Muhammad laka mujizatun ajazat kullal wara laka mujizatun ajazat kullal wara laka mujizatun eh, eh. ajazat kullal wara yàlla nee rasulullahi ay laka mujizatun ajazat kullal wara sa gaa yi day li ma leen defal li ma ci metti mooy xamuñu ko laka mujizatun ajazat kullal wara Seydina Muhammad ne yàlla loo leen defal yi nabi nag yàlla ne ko yow laa leen defal yow rasulillah te la njëkk ngay ñëw àdduna bi dafa yàq woon ñii di jaamuy xërëm laka mujizatun ajazat kull alwara laqad manna allahu ala almuminina iz baasa fihim rasula laka mujizatun ajazat kull alwara rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim sayyidil mursalina ajazat kull alwara wa yuzakkihim wa yuallimu alkitab kitaaba wal xikma sopp sayduna muhammad saydil axirin ajazat kull al wara wa in kaanu min xablu la fi dalalin mubinin saydil mujahidin ajazat kull al wara avant ngay ñëw ñëpp réer yow rasulullah saydil axirin ajazat kull al wara waaye bi nga ñëwee yow saydina muhammad ñëpp gindiku saydil mursalin ajazat kull al wara yoneen ëllëg mooy dekki ànd ak sagom wax naa la ko léegi moom rasulullah saydil axirin ajazat kull al wara yonent boobu nag bëgg ko gëm ko sauvetage la àddina ak alaaxira kooku mooy Seyduna Muhammad sang bi bëgg naa la Mustafa Seyduna Muhammad yeewu leen man ma way yonen Seyduna Muhammad seen loxo yi sang bi bëgg naa la ñu màggal yonen Seyduna Muhammad ay bëgg naa la da'ni wa madhal Mustafa Seyduna Muhammad ba firi bii rek heure bi jot na Pape Malick nee na daa ni bàyyi ma bàyyi ma wa matxal Moustapha ci ma tagg rasulullahi habibi rabbi zil wafa ala alxaaji Abdoulaye Sow ca Dagana nee na habibi rabbi zil wafa nee na koo koy soppee ki nga xam ni mooy mooy moo aji matal ji kóllëre te mooy borom bi subhanahu wa taala almuntami li shurafa nee na kooku la ñu askanelee ñeel tedd nga moom rasulullahi fa yàllaw barakallahu fa min tahiri ci aji laab ji di rasulullahi mbokk yi kenn doyalul Pape Malick di nga ñëw siire ñu am une heure trente minutes maag yow dong nag. Euh, béti ma bàyyi la nga tàggoo waxtu wi jot na béti maa joor waaw ñu tàggoo nag jaajëfal ki nga xamante ne moo ñuy abiyee gis ngeen ko noonu ci jàpp de la semaine bi moo fàll ay daram mhm. numéro téléphone am di 77 567 83 21 wala 70 681 66 10 jaajëfal ñëpp nuyu ki nga xamante ni moom mooy maman Ami mbay mhm. borom Penda Couture moom sa soppe boobu nekk si presse yaayu mhm. Aïcha ak Penda nuyu leen bu baax jaajëfal leen bu baax nuyu sama mhm. benn papa tonton Ismaïla Gueye euh, depuis impôt maa ngi leen di nuyu bu baax nuyu waa HLM Paris nuyu ñëpp papa su ma waa koñ ak ñëpp jaajëfal équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw tamit Mbaye Diouf on off jaajëfal Babacar Bey Apulaay Abdou Aziz Thiandoum jox ñëpp dig daje papa àjjuma incha allah incha allah taala yaay Seyda mu ngi ci ginnaaw di waajal moom itam dina dina ñëw dikk ak yéen ci programme bu Allégeance incha allah. mbokk mi noonu aljuma lay doon bëgg kenn wuute euh, soxna Mintu Fall sama jigéen boobu lay minti ma nga Pikine maa ngi koy nuyu baax Pape ma bàyyi la nga tàggoo am naa mbégte. waaw maa ngi tàggoo di ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jotal nuyoo suñu kilifa nag. xaaj dut kenn xaaj dut sama xaaj xalifa mbay fa tabaarakallah uh-huh. wal di ñaanal suñu baay Serigne Abdoul Aziz uh-huh. yàlla yàlla na yàlla barkeel nuyu tamit sama soppe sama xarit Serigne Sam Mboup. Sam Mboup Serigne Góor sa soppe. wallaay wallaay dégg yàlla Sam sax moo a tardel nag. moo la tardel loolu lay def moom ñooy ànd. Mhm. moom kon nuyu ko nuyu soxna am soxna Fandaw di nuyu nag sama yaay asubu na yàlla na yàlla barkeel ko. amiin allah na yàlla barkeel ko mu gën fi yàgg lool sunu yaay joojule te yàgg fi te wér Soxna euh, Jamilatu kon ba le 19 mars incha allah. incha allah waaw ba le 19 euh, di wax ne itam dañ ciy ànd ak waa kon mu ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal jaajëfal waa bitim réew sas ndax jàpp nañ ci bu baax a baax surtout États-Unis d'Amérique waa New York di Paris Canada ñoo ñëpp jàpp nañ ci bu baax a baax ñi nga xam ne dañuy bëggee Bichri TV yëpp maa ngi leen di ziyaara bu baax a baax di wax ne kontaan naa ci ñoom di jaajëfal itam Abdou Seck moom moom ma solal maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf euh, Adja Jamilatu euh, euh, Aziz nee na mi ngi nuyu waa Cité Marine yëpp maamam Adja Awa Gaye nuyu bu baax a baax ab tabaarakallahu Ablaye man mami ñoom ñëpp Aziz seen doom mi ngi leen di nuyu suñu jigéen ma madame lii Adja Awa ma nga ca Thiès nuyu ko Ablaye mi ngi lay ziar baax lay waxtaan lay ma madame Ndiaye Adja Awa lii. Adja Kumba Ly sama jigéen boobule Adja Kumba Ly soppay Sidina Mouhamed madame Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar bu baax a baax mbokk mi noonu soppay Pape Malick Mbaye ca Pout xam nga seen bis bu mag bi insha allahu taala euh, mbuur mbuur waaw ca mbuur euh, dimanche ji réew la le 13 bu ko kenn wuute Daara Mbayeen seen conférence bi maa cay ñëw suba lay doon maa nga invité waa Daara Jolof yëpp incha allahu taala mooy guddi gi maa nga jëm war xoox fa lay gàmmoo suba incha allah ci dimanche ja maa nga jëm Pire ñoom Hadj Baara Diop nuyu waa Pire yëpp incha allahu taala waa Pire maa ngi leen di xaar maa ngi ngeen ñëw maa leen invité maa fay nekk incha allahu taala lépp maag sàmm buub lay doon ñaanal leen yal yàlla yokk leen dëgëral ci daraja yi Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam le 19 incha allahu taala ca Bakaaw Banjul bisu sëñ Mouhamadul Habib tabarakallahu bu ko kenn kenn wuute waaye bëgg Serigne Saliou ca waagu ñaay sama xarit boobule bésam bi tey jii la muy rendre hommage tabarakallahu euh, Issa Sène Cheikh Bou Diop ca Grand Théâtre tey lay doon waaye sama Tidiane Ndiaye nabien moom itam incha allah taala le 12 lay doon ca xar yàlla programme yaa ngoog xam nga mbay euh, ba maam mbay laay bésam bi le 25 mars lay doon incha allah taala gàmmu télévision ca Italie ci njiital si Mouhamadul Habib si bu sëñ Mansour borom daara ji journée Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ca télévision le 26 lay doon samedi Pape An ma nga fa incha taala xaar leen ma mbokk yi mi ngi noonu bal juma incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa